mbokki yi wa rahmatullahi taala wa barakaatu rawatina nag yéen ñi nga xam ne xam ngeen bay jaar ma jaar bu baax ci faj bi nga xam ne mu ngi koy faj fajub aada ak cosaan waaye it xam ngeen koy ci wàllu ñaan yi nga xam ne daf koy faral di ci dimbali doomu aadama yi moom mbay jaay ma jaar nag mooy yëgle ni que képp koo xam ne amee nga jafe-jafe lu jëm ci wàllum ndoxum siti ku rëbët jàngoroy kajoor moom Mbaye Ndiaye Madiar nag mu ngi leen di yëgal ni ku ci amee yooyu yëpp nag bul jaaxle ñëwal yàlla may na ko ci bu baax a baax moom nag xam ngeen ni ku ko soxla da nga koy fekk foofee ca Madiar wala nga woo ko 77 654 53 72 77 654 53 72 ñi nga xam ne aussi dañoo amee far wala jëkkër rob ak ñi nga xam ne aussi bëgg nañoo xam seen avenir ëllëg ñoom ñëpp nag nañu dem seeti ki nga xam ne moom mooy Mbaye Ndiaye Madiar ñu ràññee ko lool nag ci taxawaayam ak pas-pasam ngir jàppale doomu aadama yi Mbaye Ndiaye Madiar mooma nag moo leen di yëgal ni ku ko ci soxla ku ne rek mën nga ko woo ci numéro yi wala nga fekk ko foofee ca Madiar wala bu ngeen nekkee ci diwaanu Géewul ak li wër mën ngeen ko faa xaar altine bu jot mu ngi foofu moom Mbaye Ndiaye Madiar asalaamaaleykum wa rahmatulah taala barakaatu yi doon bàyyi site internet Mbadiar TV seen YouTube bi nga xam ne mi ngi émettre ci YouTube bi di lépp lu jëm ci kuréel wala gàmm yi ak ziar xam nga ne xale bi dañ ko foroon fële ci Ngumba Ngeewul dëkk bu rëy kër Serigne Modou Niang rahmatullah alayhi soxna Touba euh, for ko jokkoog ñun nu topp ko ba tey nag ñu ànd ak moom ñëw fi nga xamee moo di kër Madiagne commune bu ba Ndiaye ñu ngi dend ak euh, baayam sëñ Ibrahima ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay. Mhm. di dafa mhm, dafa mel ni sa doom bi dafa réeroon. waaw dafa réeroon. Mhm. waaye feeñ na. te it yéen nu ko jàpp ndal ban man cee jot. ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di sant. yal na leen yàlla fay. yal na yàlla defal leen fanu wu gudd ak wér. ndax yéen gindi rek ngeen fi nekkee te wax digg yàlla nit ñu baax ngeen. ah xale bi nag. ñëw na. Mm-hmm. wax dëgg yàlla mm-hmm. sonn ngeen ci lool mm-hmm. yàlla mi am fay yal na yeen fay soxna si nga xam ne moo ko faral ni tam maa ngi koy sant di ko gërëm ñëpp daal xam nañ ni ci yéen nit ñu baax ngeen nit ñu mën a jotal ngeen te xale bi liñ ci bëggoon lépp def ngeen ko ci yàlla na yeen fa yàlla fay kontaan nañu jëf moom dafa nekkoon ci daara waaw ci daara la nekkoon ban daara la nekkoon xanaa Rosso ci Cheikh Sall moo ko yoroon. ak ngañ wadd. ak ngañ wadd. ñoo leen yoroon. ñaata at la fa def. war na faa def juróomi at juróom-benn de. waaw mooy quatre-vingt-dix-huit ji mu wax waaw. loolu daal parce que moom nee na moom quatre-vingt-dix-huit la fa dem. waaw kon daal mi ngi noonu. kon daal ñi ngi sant ñi nga xamee ñoo ci doon sonn. waaye ñi ko doon suivre ci internet bi. waaye itam ñi nga xamee ñi ngi ko doon jàllale ci li nga xam ne moo di groupe yi itam. ñu xamal leen ne boobu mën nañ ko rocci léegi ñibbi na kon daal yéen a ngi ànd ak Mbadiar TV seen YouTube di gërëm itam ñëpp ñi nga xam ne taxaw nañ ci seen mbokkum taalibe mbay Ndiaye bu Mbadiar nekk ci RTS bu Louga moom itam moo fexe woon rek ba gisante xale bi ah, gis ay bokkam kon daal ñëpp gërëm ñëpp. sëñ Moussa ñi ngi lay nuyu. ñoo ngi fay. dafa mel ni ki xale bi yow wax dëgg yàlla bi ñëwee ci oto bi yow lan taseel. waaw waaw waaw kon tabaarakallaahu lan ngay wax xale yi nga xam sëñ Moussa xale yi daw bari na lu loolu musa waaw loolu day moom dafay ëpp loo xamante ni daanaka daara yi li ci ëpp a bari. Mm-hmm. xale yi daanaka boo leen dee fitnaal rek. Mm-hmm. li ñu li ñu war a concentré pour jàng ko ko def. Mm-hmm. kon daanaka sëriñ daara li ci ëpp bari nañ ciy bàyyi xel. ca xale yi ñoom wax dëgg yàlla ku leen di neexal mhm. ba ñu mën a toog ci daara ji jàng boo ko mënee am mhm. mooy gën mhm. kon loolu wax dëgg yàlla bu ñu sañoon ñu bàyyi ci xel bu baax a baax a baax ndax njaboot moom njabootu ñëpp ndax yow mii nga xam yàlla dogal na ñëw nga sonn a ah amoo ci dara yàlla rek nga ciy wut kon yàlla yàlla fay la yiw waaw jërëjëf kon nag ñu ngi fii ci commune bi nga xamee ne moo di tey kon nag di gërëm ñëpp di sant ñëpp ñi nga xam ne wax dëgg yàlla taxaw nañ ci ba mu feeñ kon nag sëñ Iba yi ñu ngi koy sant di gërëm itam ñëpp sunu mag taalibe imam wax dëgg yàlla taxaw fële nga xamee rek moo di Baal Diop moom itam taxaw na ci waaye itam ñëpp ñi nga xam ne soxna Touba ak waa dëkk bu rëy yi ñoom ñëpp fexe nañ ba xale bi teen nuy ñaan itam oto yi ku ci forati dong ngir yàlla bul ko wàccee ci àll bi yóbbu ko ba ci dëkk wala nga ba ci gendarmerie sax nga jox leen ko waaye nag boo leen ko wàccee ci àll bi ñom dañuy am ay jafé jafé kon ñu gën gor lu bu baaka baax kon ñu bàyyi leen programme mu TV yalla yalla yàlla na jamm am na jamm ku ci am lu reer man nga woote 77 654 53 72 jaa ngeen jëf. Mbadiar TV Mbadiar TV set sen YouTube be xew ci jamono bàyyi ko fi ci mbawor yow mi am gam magal, wala siar, nga bëgg aduna bëpp yëg ko la directement. woote 76 451 71 45 Mbadiar TV daal ci kaw ca kanam abonné te bés kolos bi ngir nga mën a am lépp vidéo bu jàll ci Mbadiar TV 76 la 751 71 45 Mbadiar TV daal kaw ca kanam